merci beaucoup non chers téléspectateurs de la 7TV kon ni ngeen ko gisee noonu nag euh, si sama ubbi euh, xamal naa leen nag dinaa dalal un brave monsieur bi nga xam ne euh, du nom de Cheikh Ahmed Tidiane seen moom nag la ñu daal di dalal tey muy un vendeur de foin maanaam jaaykatu ngooñ la donc dañ koy daal di bàyyi mu nuyoo donc daal di présenté wu bu ko defee ñu gën a yaatal rek li nga xam ne mooy waxtaan bi Cheikh nuyu naa la. maa ngi lay fay Kerna di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan ñëpp. ñaan réew mi yàlla na fi yàlla saxal jàmm waaw. alors merci beaucoup yàlla na yàlla saxal la jàmm également saxal ko mboolem askan bi nga xam ne mooy yeewoo fii Sénégal donc tey nag ñu daal di la seet ci Cheikh nga nekk jaaykatu ngooñ donc yaa ngi koy def depuis combien de temps. bon bu dee ngooñ comme suñu ngooñ bi ñu am fii moom yàgg naa ko jaay quoi mais comme fi ngeen ñu fekk nii. ngooñ bi ñuy ngooñ bi ñuy jaay ni ngooñu na la bokkul ak ngooñ bi am fii bi américain yi ñoo koy produire côté Richard Toll bi di ñu di ñu ko fournir ñuy joxaat clients yi quoi dafa am différence trop ak ngooñ ngooñu Sénégal bi ngooñu gerte bi lan mooy différence bi exactement parce que am na ngooñ bi nga xam ne euh, mooy bi gerte bi di sax moom la ñu jël def ko di ko jox li nga xam ne mooy les bétails euh, donc bii nii nga ne mooy luzerne bi ak ngooñ boobu noonu lan mooy différence bon bu dee différence bi ngooñ bi moo moo gën moo gën si benn côté parce que moo ëpp moo ëpp protéine tey jii ngooñ bi boo ko doon joxe par exemple nga di ko xonte di xonte sa xari super laadum euh, boo doon joxe cinq kilos super laadum di joxe ngooñu gerte bi booy joxe ngooñ bi mën nga joxe trois kilos super laadum di joxe di joxe luzerne bi parce que dafa am protéine comme super laadum bi ni mu amee protéine voilà. donc ngooñ bi exactement fan nga koy jëlee. Euh, bii nag benn usine bu nekk côté Richard Toll foofu la ko américain implanté ñoom ñoo ñu koy jox ñoom ñoo ñu koy fournir quoi ñu di ko jaayaat mais nag am na ay quelques euh, éleveurs yu mag yoo xam ne am nañ ko ñu ngi ko commencé di produire voilà. si je comprends bien luzerne bii nii ñu ko commencé di ko utiliser bariwul. artistes yi ñi commencé euh, ñi ñi ñu ngi commencé di ko utiliser bu baax parce que xamuñu ko woon avant mais léegi dañ ko xam te yow sax da koy seetlu si luzerne bi boo koy xonte sa xar da ngay gis changement da ngay gis changement bu baax moo tax léegi ñu bari dañ koy jël di ko utiliser quoi par rapport ak avant quoi. bu ñu euh, xoolee euh, ngooñ bi yaa ngi koy jëlee fële ci Richard Toll donc Richard at Dakar xaw naa xëcc tuuti donc li nga xam ne mooy déplacement bi ak transport bi nan lay demee. waaw transport bi nag xaw na metti trop xaw na metti trop parce que boo xoolee chargement bi yi ay botu deux cent soixante dix kilos la du coup da nga siy am chargement bi soixante quatre bot lay doon te soixante quatre bot yi rek pour mu ñëw ba fii boo à peu di nga fay benn trois cent mille déplacement xam nga te bu ñëwee ba fii tamit gis nga lii bu dee si usine bi ay ni ay machine ñoo koy yàpp di ko wàccee mais bu dee fii da ngay fayaat ay nit te lii xam nga ne du liggéeyu trois personnes wàcc gis naa ko sonnoon ngeen trop. voilà du liggéey trois personnes donc da ngay fayaat ñu wàcceelal la ko riimeel la ko xam nga te yooyu yëpp après da koy génnaat si frais bu ñu usine bi sax ma noon jàppale si transport bi dina dina gën a dina gën yomb de ce fait clients yi nga xam ne ñoom leen koy jaayaat ñu gën si gis seen bopp. Mhm. alors euh, naka lay demee euh, partenariat bi yaat usine bi donc euh, voilà da nga yow yaa koy jënd jëndal ko sa bopp ñëw indi ko fii jaayaat ko. am si sa bénéfice wala euh, ñoom dañ la koy jox nga exposé ko fii di ko jaay après nga delloo leen seen xaalis biñ ci moom. usine ba nag euh, danga nga fay am compte man sama benn grand bu baax bu ñuy wax njuga la collaboré depuis États-Unis wax dëgg yàlla moom moo gën a yombal liggéey bi sax xam nga moom la collaboré moom moo fa am compte ñu ñuy liggéey daal man ak moom. alors gis nañ ne carrément euh, prix bi dafa yokk ces derniers temps li nga xam ne mooy ngooñ bi prix bi yokk na lool xaw ma ndax ne bi si la bokk dafa mel ni sax luzerne moo gën a cher. waaw d'une part luzerne moo gën a cher mais tamit moo moo gën a sakkan parce que moo gën aussi parce que boo koy joxe da gis ne yow li nga doon utiliser si céréales sax day wàññeeku parce que xarit seen lekk dootu bareeti mais ñoom lii boo leen ko tegalee dootuñu si am dootuñu si am kii quoi parce que dañ siy nekk rek. la bëgg gën a bëgg daal. waaw moom lañ gën a bëgg te essayé naa ko essayé naa ko essayé naa ko maintes fois parce que man dama yor ay xar essayé naa ko te tamit même bu dul dara gis naa gis naa résultat bi quoi. Hmm. ni xar yi at nag yi kese bëgguñu ko ndax ngi seen fële fas bi moom it moo ngi ci di di di di di ci lekk donc à xar euh, nag fas lan yan yan bon am na koo fi gisoon léegi mu gaaree otoom jënd si éleveur éleveur lapin bu mag la. muy tudd Thiam parcelle la dëkk moom aussi ay lapin la koy jox du moom sax nee na ma carrément joxeetul joxeetul joxeetul que ripaasu lapin bi lii rek lay xontee lapin bi ak ndox du mooy li doon wax ci commencement bi rek moo gën a baax suñu kii bi ñu am fii voilà buñ ko yaaxul daal euh, xontu xar bu baax la. xont bi nu muy demee da ngay daal di jël ripaas def ko ci paan bàyyi ko noonu xarile wala dañ ciy def ndox wala dañ ciy mélange leneen. waaw xam nga gis nga ñu yor fi ñaari machine am na si ñoo xam ne nag dañ jënd parce que par bot la da ngay jënd fay ñu daggal la ko si machine bi euh, bu la neexee tamit nga dugalaat ko si machine bi mu gën a sew am na ñoo xam ne dañ koy def poudre di ko xoojaale seen ripaas yi ñoo xam ne dañ koy dagg une fois rek tas tas ko si xari comme ni ngay ni ngay joxee ngooñ alors ñu daal di ñëwaat ci augmentation des prix et donc euh, prix lu tax mu yokk ci ci ci li nga xam ne mooy ngooñ bi. waaw loolu moom jaaxal na ma trop parce que dëgg bi man damay wax amul contrôle même ngooñu gerte bi sax ngooñu gerte bi gis nga fi mu toll nii saagu bi mu ngi jar cinq mille te période bi saagu ngooñ daawul jar lool xam nga loolu daal état bi la quoi d'une part. avant est-ce que doonu woon jar trois mille si je ne me trompe pas léegi muy jar cinq mille. voilà te day gën a yokk sax mën na dem ba d'ici tabaski xalaat naa mu dem ba huit mille ah. ëpp na kon yi nga xam ne dañuy élever li nga xam ne mooy bétail xar moo xam nag di waajal tabaski bi donc euh, préparez-vous à ça peut-être aussi gouvernement bi dina ci def euh, ay jéego avant boobu ñu jéem ko wàññi gisoo xalaatuma ko ne parce que gouvernement bi ma gis fii moom contrôle amul amul contrôle daal amul contrôle parce que boo xoolee yu bari si kaw lay yokkoo boo laajtee sax même bu dul bu dul kii sax boo laajtee. bu beneen produit yokku boo laajtee dañ laaj ñoom ñoo yokk taxes yi donc looloo tax ñoom ñu yokk seen produit waaw parce que mën naa wax ne daal ñoom bu ñu si jàppoon affaire yi dina gën a yomb si parce que ñun bu ñu sañoon luzerne bi sax du génnee li muy génnee si usine bi mais xam nga boo xoolee frais yi yi nga siy defaat yëpp donc tamit da nga koy bëgg a jaayaat sa xaalis génn ñun bu ñu sañoon day ñëw rek dem boo xoolee commencé naa di ko sax parce que da na dem parce que fii yëpp luzerne la woon. si si xam nga mooy li ma la wax rek produit bu baax la foo ko am day day kii gisoo da ngay nit day romb ne la dama bëgg par sac nga ne ko lii duñ ko détaillé mais na ngay obligé yow nga jël say responsabilité détaillé ko pour mën a téye clients yi quoi parce que ñoom bu ñu demee xonte ko benn yoon dinañ si xam dinañ xam dinañ xam résultat bi de de ce fait dinañ ñëwaat loolu moo tax ngay def yenn sacrifice mais moom détail bi sax. du gënul waa arrangé wu arrangé wu mais dangay ngay def marketing njaay bi quoi. ñëwee si ci li nga xam ne mooy saag bi tey yow luzerne bi nii nii euh, saag ñaata la. bon luzerne bi man maa ngi koy détaillé saag 6000 mais dama koy jënd. 6000 waaw dama koy dama dama dama koy damay damay jël boot bi tas ko dugal ko si machine bi machine bi graté ko après ma soog ma sol ko si saag soog ko jaay 6000 parce que même boo jëndoon bot bi tey ji bëtu deux cent soixante dix kilos bi da ngay fay cinq mille ma soog la ko daggal ci machine bi di du kon xom boo xoolee te tamit maay jënd samay xootu saak boo xoolee xam nga ne kon waaw mais doo si am dara sax détail bi mais xam nga client yi waa koñ bi ñëpp ku si nekk da ngay gis bëgg si bëgg si xonde xaram te ñëpp duñ am njëgu bot ñi ay benn xar la ñuy yor ñii ay ñaari xar lañuy yor xam nga loolu moo tax nga da ngay obligé def ko rek pour jàpp si quoi. mais at a ngi génn bu baax. Euh, parce que yokk nañ li nga xam ne mooy ngooñ waaw yokk nañ ngooñ bi mais tamit xam nga éleveur moom lu ngooñ lu mu mën a jar dañ koy jënd parce que ñoom éleveur dëggantaan laa du seetaan juróom di xiif éleveur dëggantaan bu sañoon sax waaw bu sañoon sax moom bu yoroon tey ji mën na yor benn mille franc dem xonte ko xaar yi ñëw toog xaar yàlla ñoom loolu leen gëm quoi moo tax mais tamit euh, état moo si war a jàpp jàppale jeunesse parce que élevage boo xoolee ñëpp ay jeunesse ñëpp ay jeunes leen élevage bi ñëpp ay jeunes leen ñi si nekk ñëpp donc ñoom ñoo si war a jàpp am na éleveur nag yu am moyen am na éleveur yu mag yu am moyen ñuy produire sax liderne di si xont xam nga ñooñu tey jii euh, ci yenn coono yi wàcc na leen xam nga mais nag ñëpp amuñu doole boobu foo ñuy sóoraale ñi nga xam ne ñoo nekk suuf. dégg naa aussi élevage dafa daal di am xaalis donc bu élevage amee xaalis. ñi nga xam ne dañuy yore ay euh, ay bétail yu baree baree baree bare yéen it da ngeen di am xaalis ndax à chaque fois dañuy daal di tourner euh, ñëw si yéen. waaw élevage am na xaalis parce que boo xoolee euh, élevage bi si wàllu boppam même bu dul élevage en tant que tel mais aliment bétail si wàllu boppam lu muy dugal Sénégal kenn xamul nu mu toll parce que Sénégal seen usine ripaas fi nekk baax na trop. mais am na ripaas yoo xamante ne dañ koy importé ji di ko jëlee ba Mali am na yu jógee ba Niger di indi fii di si xonte xaati te bu duggee fii tamit sax du doy nu mu war a doyee ça veut dire que élevage bi mu ngi dox mu ngi si dëkk bi mu ngi dox carrément si dëkk bi mais comme li ñuy wax rek état bi si wàllu boppam ñoo war a jàppale élevage bi waaw. yow tu bi bien ta avec li nga xam ne mooy euh, jaay euh, foin bi jaay ngooñ bi. waaw man moom sama liggéey. daanaka élevage la en tant que tel quoi man si biir élevage laa nekk lépp même bu lii sax maa ngi si xar yi maa ngi si nag yi maa ngi si lépp war nga yor xaalis ca Sadibou eh, kii yor na xaalis nee na même bu lii moo ngi ci xar yi moo ngi ci nag yi donc yow yor nga xaalis bu baax a baax waaw ah, macha allah ñu ngi sant wala lii laay bañ man ku ma seeti mu ne ma ngi sant yàlla ñëpp ngi sant yàlla yor nga xaalis nañ waxtaan kenn déggul ma ak yow wax moo dama ne ñu ngi sant yàlla. ma ne xam naa ne yaa sant yàlla bu baax. balaa ñuy nangu ne yor neen xaalis kay ñu am suñu yëfu bopp. <laughs> duñ ko nangu man lii woo ma jaaxal ñoom lu tax duñu nangu jamais. <laughs> ah mais amaguñu mais sant yàlla daal xam nga tey jii li tax ñuy sant euh, lu mu métti métti tey da ngay gis koo tane loolu moo tax boo waxee ñu ne la sant yàlla dëgg yàlla borom xel moom pour man warul jàmbat parce que da ngay jàmbat génn gis koo tane moo tax ñuy sant yàlla. Mhm. lii kon si je comprends bien yaa ngi gagné bu baax sa sa sa sa vie ci ci ngay jaay. waa alhamdulilah mais pour man waroon na gën a mën a waroon na gën a marché parce que comme ni nga ko waxee léegi déjà gis nga chargement bi ñëw nii euh, warul war waru fi woon toog benn benn benn une semaine boo xoolee vendredi passé la ñu wàcce woon def na fi une semaine moo lay wan ne dëkk bi amul xaalis. di ngeen ko wàccee. Mhm, def na fi une semaine moo lay wan ne dëkk. voilà dëkk bi amul xaalis nit ñi aussi ñu ngi seen préparation n'empêche ñu ngi jënd éleveurs yi ñu ngi jënd parce que am nañ dafa jot am na ñu bari ñi nga xam ne dañuy daal di jënd quelque chose de plus euh, euh, moins cher pour leur bétail ba Korité bi passé après ñu doog concentré tabaski. léegi nag dama la koy xamal de éleveur moom éleveur dëggantaan li <laughs> <laughs> jur gi kii rek man maa ngi ne maa man mii di ni chaque année damay ñëw damay ñëw yëre tabaski mais su ma juumul 2014 laa gëj a julli ji tabaski sama yëre tabaski tabaski dina passé ay jour ma koy soog parce que période boobu du ma ko tal maa ngi si liggéey bi voilà. yow fooy tabaski. man fii laay tabaski si biir fii laa dëkk yow fii laa dëkk laa juddoo. dégg nga ne euh, wa ngi nii nga tabaski ji. non ma gëj a julli yi it parce que bi période bi ñuy julli it maa ngi si livraison xar yi ak liggéey bi. liggéey tam si jaamu yàlla la bokk donc euh, loolu moom je pense que après dina ko laaj imam Lamine Gueye lan la ñu wax si euh, ñuy julli ji après liggéeykat <laughs> liggéeykat yi di liggéey ah, donc mën nañ daal di ñëwaat euh, tey par jour di nga génne ak ñaata. bon ça dépend rek xam nga njaay moom ça dépend si journée bi ni client yi ñëwee mais bu client yi ñëwee rek loo jaay rek des fois nag dina si am ay jours yoo xam ne genre dina neex des fois moom ay jours dañuy sentir ni dëkk bi mooy loolu te dëkk bi sax temps yi amul xaalis waaw nañ ko wax tey <laughs> amuma lan la mais amul xaalis voilà. dafa mel ni ñëpp ko yëg nag dafa méttee fu ne. dafa am ñoo xam ne dañ doon jënd sax am ñoo xam ne dañ doon fay ba bàyyi fi mais léegi dañ lay la wax ne la lebal ma ne xaa dëkk amul xaalis. métti na kon donc instant bi ñi nga xam ne ñoo ngi waajal korité bi sax dañuy daal di sentir ne carrément xaalis amul benn yoon. ku nekk dafay daal doom préparé euh, bien avant léppam waaye léegi ba léegi boo demee ci marché yi sax mooy loolu euh, donc euh, ñu ñëwaat un peu ci li nga xam ne mooy foin bi conservation bi nan lay demee. ba bu dee bii moom amul amul amul amul kii quoi xam nga loolu sax mu gën a yokk tax ñu bari du ko jënd même suñu ngooñ bi am fii ak bi yëpp ñoo yem daanaka bu laalul ndox daal du yàqu du yàqu mën nga ko jënd nii téye ko un an sax di si du def dara. je pensais que ne euh, buñ ko tegee ci au soleil dafay dafay yàqu wala truc de ce genre. non non parce que du def dara bien vrai que dina si baax nag ñu muur ko ñu muur ko ak soleil bi parce que ñun dañuy préférer mu mu verte quoi ñu vert voilà mais comme ni mu mel nii kaw gi la rek boo daajee benn bot biir bi yëpp dafa verte gis nga bi ñu doon dóor léegi voilà biir bi yëpp day vert si je comprends bien yéen période nawet du leen arranger trop. waaw boo gisee période nawet sax lu tax Dakar di gën a manqué parce que Dakar dépôt yi ñoo cher dépôt amatu fi te gis nga fi comme par exemple tey jii pour nga liggéey pour pour nga liggéey carrément il faut nga am yenn espace yi te yenn espace yi boo yenn espace yu tëju yi Dakar ja daf fi daf fi daf fi jafe carrément moo tax période nawet si la ngooñ di gën a manqué. pourquoi nga choisir métier bi donc euh, métier jaay ngooñ. bon man sama métier déggoo ma ne la sama élevage la en tant que tel élevage si wàllu boppam nag moo yaatu élevage boucherie mu ngi si embauchement mu ngi si euh, de bétail mu ngi si vendeur de mouton mu ngi si lépp mu ngi si élevage moo yaatu voilà. choisir le métier de élevage. bon passion la nag. développement depuis. léegi naa xale yu góor yi ba ñu nekkee xale dañuy bëgg xar tellement ba bu ñu amoon seen papa yi bu ñu amoon xar xar bi am doom dañ leen koy may yow si ñooñ nga bokk. waaw man nag waaw waaw man nag dama fekk sama papa di yar xar sama sama papa ah xaritam boo xam ne moom leen doon sama beneen xaritam bu ñu naan baabaloo moom aussi da doon yar xar moom tamit daaw ma jur këram parce que da daan am ay ngandi xar voilà aussi tamit mu juddoo si milieu boo xam ne daanaka euh, fi Yoff yëpp. yoof yëpp fa leen waaw yoof yëpp yoof daal dëkku élevage la mu dëkk si koñ boo xam ne tamit chaque année xar bi ëpp si dëkk bi fa daan génnee kër Papa moo jaañ Mbeng ma jàng fa lu bari su élevage wax dëgg yàlla ak sama grand Assane daanaka sama sama élevage bépp fa laa ko jàngee moom wax dëgg yàlla. je comprendre que ne yow tu le fais avec beaucoup de fierté avec beaucoup de bonheur et tout. nga tiim xar yi wala nga tiim ngoon yi lan ngay ressentir. waaw ma am naa sama benn bàjjen sax l'ami des animaux la mu tudde sa même bu dul lii sax même bu dul lii man dama am ñeewante si si jur quoi. kon yow xaj yi ndaw yi ñi nga xam ni seen yaay dañu accouché abandonné leen naka da nga ñeewantal jur parce que fii am na xaj bu fi accouché. non yii abandonné wu ñu leen sax boo xoolee yu si bëri man maa wax zoo sax mooy kii leen moom nekk pour mu pour mu maye leen parce que am na ñu ko soxla quoi ñu ñu yor tool doon doon doon ko ñaan sa yu bëri dem na. am na na yu bari yoo xam ne maye na leen man daal noonu laa mel si jur. <laughs> sama caméraman nee na këram dafa am jinax buy promené wu <laughs> ndax kon que da nga bëgg rabu àll <laughs> yow boo gisee gisee jinax man jinax mun ma ko supporter yow ndax day yàq yow boo gisee jinax bi da nga koy rey wala da nga koy bàyyi mu dund yàq sa yéen. non. déedéet yaa ne tu es l'ami des animaux. waaw mais côté boobu moom wax dëgg yàlla jinax daal daan naa ko yar mais ba yi moom daal parce que jinax yu weex yi sax dama ko doon yar pour pour ñuy éliminer jinax yu ñuul ginnaaw yu ñuul yi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy yàq sa sa sa xont bi yëpp donc donc waaw mais ginnaaw yi moom dañ leen di jaay doole quoi ñoom fu ñu leen gis dañ leen di rey. <laughs> Cheikh dégg nga tontu na <laughs> nee na bu gisoon jinax bu da ray rey <laughs> day yàq. non moom xam naa dama koy may benn jinax bu weex rek comme sa après. këram yëpp daa inondé de jinax. naa dama koy may benn jinax bu weex après mu éliminer ko yooyu. Mhm. alors ñu daal di euh, gis ñaari machine donc machine yi tey c'est pourquoi exactement. bon comme boot bi ni mu mel nii xam nga boot bi dafa diis deux cent soixante dix kilos la te ñu bëri dañuy jënd bu dee comme bu dee nag nga yor mën nga ñëw daaj boot bi rek jël sànni sax sànni nag yi mais bu dee xaar la xar lay kam dafa yéeg mën neen ko këpp si mbaar bi quoi léegi yow day obligé fayaat boo ñu fayee cinq mille ñu daggal la ko si machine bi defal la ko si xottu saagi ñu ngi koy jaayee six mille après ñu fay leen cinq mille muy onze mille. non non no sax euh, yi nga xam ne ñun ñoo ko daggal suñu bopp solal ko suñu bopp yooyu mooy jaar mooy jaar loolu. yi nga xam ne machine bi moo ko dagg lii wol ko ñaat lay jar. waaw mooy xam nga dañuy jël benn bot comme yi ñuy détaillé dañuy jël benn bot détaillé dugal ko si machine bi buñ ko dugalee si machine bi ba pare soo ko sol si saag bu buñ ko solee si saag yi doo ko jaay six mille mais bu fekkee ne yow danga ñëw jënd bot bi en yow yaay fay cinq mille ñu daggal la ko si machine bi parce que boo xoolee fii gis nga place bi mooy li may wax rek place bi li muy ndaw ndaw yëpp am na quatre quatre quatre emploi parce que boo xoolee machine bi kii ko yor waaw kii di sol kii kii yor kii bi euh, kii di kii di kii kii di dagg ak kii di sol saak yi xam nga boo xoolee mooy li ma man moom maa ngi fépp man moom maa ngi fépp quoi machine bi sa vient d'où parce que euh, euh, voilà gis naa ne machine bu xaw a war mën a am doole la voilà ça vient d'où ñaata ngeen ko jëndee ak naka ngeen def ba ba ko ba am ko. bon machine yi suñu benn grand bu nekk Touba moo ñu ko defaral. c'est à la main Sénégal lañ ko defaree. Sénégal lañ ko defee mooy li may wax rek mooy li may wax rek benn grand bu ñu naan ñas xam naa après sax dinaa leen jox numéro donc dinañ ñëw ci yow tourner la parce que nee naa leen man je suis là pour les góorgóorlukat et que euh, képp kuy liggéey ki nga xam ne euh, doomu Sénégal nga ngay liggéey di daan sa doole rek man dama lay tàllal sama micro ah, ba tax na Cheikh ça me fera énormément de plaisir nga boole ma ak ñas moom ñuy seetaan ah, donc euh, voilà ñu liggéey at moom donc lan nga doon wax. noo amul benn problème mooy li ma lay wax rek gis nga machine bi ñu bari dañ yaakaar ne importé la te nit moo ko defar rek sànq rek la fi jógee mooy li may wax rek si dëkk bi Sénégal. bu wax ni état bi ñu xaw a am tuuti échec mais jeunesse bi fi nekk nangu neen liggéey nangu neen liggéey trop nangu neen liggéey trop gis nga mooy grand grand charretier bi ngay gis nii bul yaakaar ne rek benn métier la. naa ko jël sax naa boo gisee ñuy livrer guddi dafa am yeneen liggéey yoo xam ne da koy liggéey bëccëg gi mooy li may wax rek euh, jeunesse bi nangu neen liggéey mais ku leen teg loxo la ñu ku leen teg loxo la ñu gis nga lii nii ñu nekk di def nii bu ñu amoon ku ñu teg loxo ba tey. mën na wax ne dina weesu fii quoi. Euh, seen le charretier bi nga xam ne jëloon naa ko ci góorgóorlu je te fais un coucou ndax nee na moom à chaque fois euh, seen waa dëkk dañuy seetaanaat rek li nga xam ne mooy émission góorgóorlu pour vous dire que góorgóorlu euh, ñëpp lañ fi nekkal bépp métier rek dañ koy daal di daal di sem seeti ji donc ñun on est pour vous ba tax na machine bi xam naa ne dañ koy daal dañuy daal di dem tourner at moom xool naka nga koy naka nga koy utiliser. waaw waaw parce que am naa sax benn kii bu mu war a dagg léegi saa ñu xoolaale parce que machine bi am na importance trop parce que euh, ñu bari ñu ngi ñuy woo sax di ñu laaj fañ leen fan leen ko defar loo am éleveurs yu yi nga xam ne dañoo am dañoo dañuy produire li leen sax ñu ñuy woo di ñu laaj depuis ñu def suñu publicité ba tey. alors euh, euh, dañu lay daal di bàyyi nga wax sa dernier mot daal di tàggatoo bu ko defee ñu dem ci liggéey bi. waaw di sant yàlla bu baax julli si yonentam bu tedd di sant sama ñaari waajur ñaanal sama maam waaw ñaanal sama maam yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam kanam mu fekkee sama njariñ di ñaanal tamit ki ma amul ko dul moom muy Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ak capitaine ak maam Babacar di sant ñëpp daal di sant ñi nga xamante tamit aussi ñoom la ñuy liggéeyam lool mention spéciale tamit à grand Juga Juga Dieng parce que mën naa wax ne lépp moom parce que lii nii Yoff si wàllu boppam am na ñu bari ñoo xam ne bëggoon nañ ko fi mais mën naa wax ne ñun bu ñu demee ba commencé di ko si liggéey moom moo ñu yombalal di sant grand bi si ginnaaw ñu di ko wax Modou Ablaye moom aussi jàpp na si bu baax a baax waaw ah ñoo xam ne tamit euh, newuñu fi tey mel ni Modou Modou de Charité Modou na si bu baax. non da si jàpp nag ñoo ngi lay nuyu. parce que parce que parce que gis nga affaire bi mu ñëwee amoon neen sax problème pour décharge bi amoon neen sax problème pour décharge bi parce que ñii ñu woon ay prix yu kenn xamul lañ ñu doon taxé parce que dañ xam ne lii du yomb pour mu pour mu wàcc mais moom moo si jàpp jéngu xam nga ñu dóor mooy li may wax rek bu ñu amoon benn jàppale bi dina gën a yomb comme usine bi nga xam ne mooy mooy moo koy riime teg ko si camion bi. buñ ko mënoon am bu ñu amoon moteur boobu nga xamante ni bu ñu koy riimal tegal ñu ko fii bu boobaa doon na gën a yombal suñu liggéey mais xam nga yaa ngi koy wax lii nga ne affaire yi dafa cher affaire yi xoolal li ñu fay transport nga xool bi mu ñëwee li ñu fay. 300000 quand même c'est beaucoup. voilà bi mu ñëwee tamit li ñu fay aussi tamit éléments yi fi nekk chaque jour ku si nekk da nga koy fay minimum 5000 francs quatre personnes yi fi nekk yëpp te chaque jour ñu ngi liggéey donc lii mën naa wax ne petite entreprise la. te pour man bu si bu ñu amoon jàppale sax mu gën a yaatu parce que dëgg bi léegi ñëppay élevé ñëppay élevé man gis naa benn commandant bu retraité fii ñoo àndoon ma dem jëndal ko ay nag fi ñu toll nii boucherie la yor xam nga koo génnul élevage mooy li may wax chaque jour rek te mbay ak commerce man naa man mbay ak sàmm mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko kii mënuñu ko génn si réew parce que bu dul dara dafa nekk lu xamante ne dafa yor économie dëkk dëkk bu la si gën a dëkk bu la si gën gën gën a ci dëkk bu la si gën a gën a développé voilà noonu la demee parce que tey jii xoolal ba si Saalum suñu ngooñ ngooñu ngooñu ngooñu gerte bi ñuy bi jox suñu xar yi léegi Saalum la doon jógee mais lu si bari léegi Guinée Bissau lay jógee man sama commande yi passé yëpp Guinée Bissau laa ko jëlee mais loolu du yoon te xoolal Sénégal li fi nekk si suuf. mais waa Saalum si wàllu boppam sax amatuñu ay tool ñoom bu ñu demee pour bu ñu bëggee bay sax dañuy luy ay suuf nga loolu du yoon si si si dëkk dëkk dëkk bu toll ni Sénégal te li fa doon génne si gerte mais man daal je ne comprends pour man mais gerte day manqué gerte day manqué parce que tey jii mu ngi mel ni Dakar rek nay romb benn terrain suba nga ñëw fekk ñu tabax noonu la demee nay romb benn terrain suba nga ñëw fekk fa benn entreprise te entreprise bi ñi koy moom ñu nekk sax ay Sénégal comme lii ñun ñu ñu koy ñu ñu koy jox xam nga noonu lay demee rek suuf si suuf bu suuf si moo manqué suuf suuf moo amatul Sénégal te baykat yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi di bay ñi leen état bi war a jàppalee jàppalee ñu leen ko te dañuy bay ba pare war a jaay seen yëpp duñ am fuñ ko jaay xam nga dèjà gis nga soble ak pomme terre ni mu mel si dëkk bi te non am na sax am na mais dafa amul njëg quoi. te boo demoon si tool yi ba gis ñi koy bay li ñuy daj xam nga te mooy loolu daal man am naa sama benn papa bu nekkee États-Unis nee na man milliardaire la parce que lii ëpp doole laay liggéey ma ne ko la la la moom médecin la foofu mais moom nee ne fii euh, moom fi mu nekk éleveurs yi ak baykat yi ñoo fa xaalis donc man dama war a am xaalis ma ne ko nag ma ne ko nag du fii loolu nag contraire bi la. fii nag c'est le contraire boo boo nekkee di béy wala ngay ngay dañ lay donc alors que ñii ils gagnent beaucoup d'argent beaucoup beaucoup beaucoup d'argent donc euh, boo xoolee euh, boo génnee Sénégal niveau international yi euh, niveau international boo fa demee ñi nga xam ne ñooy gën a béy ñoom ñoo lañu gën a respecté parce que ñoom ñoo gën a am xaalis loolu pourquoi ñu am sénégalais yi am vision xoolee bon Sénégal moom Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dañuy dañuy dañuy xeeb dañuy xeeb métier Sénégal moom dafa nekk dëkk boo xam ne dañuy xeeb. boo toogul bureau rek. nga toog bureau te voilà mooy li may wax chaque jour man gis naa fi comme li ma la wax léegi si sama euh, pas commandant gis naa fi benn benn mën naa wax ne mili millionnaire la mais seq nañ fi sax ay business su këriñ maax moom te dafa yor xaalisam mais lépp boo wàccee daaw si feeñ te chaque jour moom aussi bokk na si li ma yokk a jom parce que moom chaque jour dala koy wax ne la surtout Yoff bi ñu nekk ne la dëgg bi dañ nekk dëgg boo xam ne. Euh, dañu gaaw si xeeb nit yenn liggéey sax boo koy liggéey ñu am fuñ la le man dama koy dégg chaque jour naan maan yow comme doo ab doom doo doo ab lébu liggéey ajoor rek ngaa liggéey. loolu moom loolu léboot séeréer fa la yem. mooy li ma njëkk ba dañu doon wax naan séeréer yi euh, séeréer yi ak joolaa yi ñoo gën a am jom ci liggéey liggéeyu jànk parce que ñoom bëgguñu jël loo xam ne. Euh, doo leen ko jox mais liggéey liggéey la da ngay gis ay tukkuleur yu dawal charrette te pourtant charretier séeréer sama mbokk séeréer yi lañ ko xamee woon donc liggéey amut askan. mooy li ma la wax rek xam nga nit ku lay xeeb moom xam naa dafa dafa ñëwul ba fi nga dëgg waaw mais moom moom li ma ëppal solo si mbir mooy que ni samay wayjur ñu ma rek alhamdulilah quoi voilà. merci beaucoup kooku di euh, Cheikh Sène euh, donc moom laa dalaloon tey ci émission góorgóorlu euh, c'est un énorme plaisir yéen ñi ngeen xam ne xamoo leen Louis Fon donc nag voilà gis ngeen ne li mu ko détaillé wax leen expliqué leen lépp bii nag moo tudd luzerne bi bokkul at bi nga xam ne mooy ngooñ bi nga xam ne moom la ñuy jaay donc nag di am contentement ak plaisir di ko dalal pare gu ñu dee dañuy dem ci liggéey bi mais ginnaaw balaa ñuy dem ci liggéey bi damay tàggatoo ba pare ginnaaw moom na ba pare di daal di remercier nga xam ne juste à côté kooku sama présent la ndax moom moo ma daal di proposé a euh, Cheikh mi donc di ko jaajëfal bu baax a baax moom it sonn na lool ci émission bi ay li jaaxal yow ba ngay tàggatoo nuyu woo papi papi waaw xam nga liñ naan li li ñu naan ku ku lim juum sax même bu dul papi sax mooy ñi fi nekk nii ñuy liggéeyal xam nga pour ma pour pour man ñoom laa waroon njëkk nuyu mais xam nga rek li naan Euh, non kulim kulim sax kulim Dioum moo tax it euh, limaale naa leen di leen euh, di leen def en gros coucou également képp kuy liggéey fii rek ak képp kuy jaay foin maanaam ngooñ moo xam luzerne bi moo xam beneen bi la Ah, donc yéen ñëpp maa ngi leen di def en coucou nee naa leen góorgóorlu c'est toujours un plaisir di leen dalal ci émission góorgóorlu ah, ngeen di wone seen liggéey di wone seen jom mais aussi di wone ne ah, ay citoyen ngeen da di liggéey pour votre pays donc Keena la star moo fi daal di ñëwoon pour votre émission góorgóorlu mën ngeen ko contacter pour ñi nga xam ne bëgg nañu ñu daal di leen tourner góorgóorlu sur le 78 480 25 25 métier yëpp la ñuy daal di tourner di leen jaajëfal bu baax a baax mais nag di di jaajëfal également sama caméraman moo ngi may xool xool ay ma tàggu boo ma nuyuwut Cheikh Sadib moo ma gën a sonal ci àddina ah, sama doom de tous les temps nee naa leen lépp lu rafet Euh, ci image yi moom moo ko daal di génnee mais merci aussi à euh, Gora ko kit sama doom la donc lépp lu baax euh, ci ci image yi moo ko daal di monté Gora sama monteur de tous les temps yemul rek ci góorgóorlu mu ngi ci 7TV soir mu ngi ci matinal bi mu ngi ci Ramadan show mu ngi ci lépp lépp lu ma def rek moom moo koy daal di monté mais it lépp Cheikh moo koy daal di tourné di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen numéro ci beneen métier sur ce de vous et bon dogu à